mbokk yi ñuy leen di nuyu bu baax baax ñu ci arène nationale journée jam euh, jam production moo aaye tey le nga xam ne mooy arène nationale grand combat bi dox ci diggante gi nga xam ne mooy Baye Mandione xam ngeen ko ndaanaan la champion la waaye kan lay dajeel bébé Diène borom muy champion di ndaanaan ngeen gis ko bu ñëw li muy mobilisé mais yeneen combat am solo yi nga xam ne ñu ngi ci biir diggante Fallou Kalando ak Tass solo ma ànd ak Nabi borom lamb diaspora muy def ay kii am solo mais di def ay interview yu solo bala ñoo sori rek dañuy dem ci biir jël réaction mbër yi waxtaan ak ñoom mais waxtaan ak supporters yi également ñu wax ñu nan lañ waajale bis bi Nabi jël ma ñu dem ci biir te ñëw waxtaan ak supporters yi waxtaan ak amateurs yi ay ca Nabi borom arbitre bi soufflé na génn seen diggante diggante Forza Forza mi ngi noonu moo leen wan ginnaaw deuxième combat de la soirée Papis Junior Bamba bi naa la Forza wan leen ginnaaw Papis Junior moom ngeen jàkkaar lool ñu ngi ci de la soirée journée jam production grand combat Baye Mandione Bébé Diène xeex ñoom ñaar Forza jiital pied gauche ñaari pied gauche la wala pied gauche ak pied droite xeex Papis Junior Forza Forza cokkaasaat na Papis remis ko pied ak pied droite la xeex xeex eh touché na ko de diggante Forza 2 ak Papis Junior xeexaat nañ xeex. xeex xeex Forza ma ngi koy sëkkatal Forza Papis Junior Forza numéro 2 Papis Junior xeex jël na tànk ba jël nañ ko muy déclassé mbot génn na ca daw nañ jàppante ñoom ñaar plaqué na ko Forza ma ngi koy mbot jógaat nañ hee eh, bëri nañ ñoom ñaar xeex xeex daw jàppante Forza jàpp na Papis Junior jàppagul. diggante Forza 2 Papis Junior diggante Forza 2 Papis Junior Papis ma koy dugal ay percule yu suuf diggante Forza 2 Papis Junior deuxième combat de la soirée premier combat bi Tidiane Faye moo daan Kona 2 fàq na ko mu bañ rëpp ñaga ca suuf ma yokk muy bañ Papis Sène Papis Junior Forza diggante Papis Junior Forza fàq na ko xar ko mu bañ ñaga ca suuf ma ngay raam lu muy def Papis Junior ma nga ca suuf Forza Papis Junior diggante Forza Papy Junior plaqué ko ma ngi koy mbot Forza ma koy mbot sulli nañ wax ko rëpp jógaat wër na ko da koy daan wala lu xew lu xew lu xew ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre lan xew Papy Junior daan na Forza Papy Junior daan na Forza eh daan na ko. ci troisième combat de la soirée dox ci diggante liir bu ngor wan leen ginnaaw a caatu kolobaan moom ngeen jàkkaar lool moo tentu bopp bi liir bu ngoor ngemo ngemu noir li mi ngi noonu mi ngi kàbbar adversaire am caatu kolobaan moom ngeen jàkkaar lool ngemo ngemu lu ñuul li toccale ko morso bu wert ca ginnaaw diggante liir bu ngoor caatu kolobaan diggante liir bu ngoon caatu kolobaan diggante liir bu ngor caatu caatu kolobaan diggante caatu kolobaan ak liir bu ngor cokkaas na daw jël ko caat jël na ko ma ngi koy prise bañ na lu xew daa mel ni liiru daa toog de lu xew liiru bu ngor daan na ngor daan na caatu kolobaan sama gars yi ziar naa la kii sama doom la kii sama xarit la kii suma jarbaat la bu la delloo njukkal ci làmb dafa jël rek mbatt delloo ca ndaa la li tax may wax ni dafa jël mbatt delloo ko ca ndaa la mooy daf laa delloo li nga moom ndax yow ak njabootu làmb altine la ak talaata bés doxul ci diggante dëgg la waaw loolu maa ci sant di ci gërëm wax dëgg yàlla ndax lii mu def nii yombut xool ku mel ni man mu tuddee ma drapeau wax dëgg yàlla loolu yëg-yëg la ak mbëggeel la waaye nag maa ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di di di sant tamit waa Sénégal di sant tamit waa diaspora bi aw ma seen fay Saint-Louis maa ngi lay ziar waaw mais bi nga ñëwee tey ci stade bi loo gis. waaw gis euh, mbégte jeunesse bi ni ñu taxawee wax dëgg yàlla di wax ne Sénégal amut lu dul jeunesse am di lancé waat appel surtout rawatina parcelle gi ma jógee gi nga xamante ni ministre Amadou Ba ma nga fa ma koy wax ne mu bàyyi ñu xel parce que lii dafa am solo lii yombut stade bu toll nii ñu tabaxoo jeunes yi nekk fii ku mel ni jàmm wala ay Ibou Laye xarañ loo di bëggal xale yi di tëgg làmb yi loolu wax dëgg yàlla dañ war gën a jàppale gën ñoo jàppale que mënoo am ku mel ni ba Bada Kéemaan ci biir parcelle ah ni ma toll di seet di seet leneen wax dëgg yàlla loolu d'accord ma ko waaw waaw waaw waaw waaw borom TikTok waaw dafa d'accord ma am la di seet leneen waaw di seet leneen loolu d'accord ma ah. waaw kon daal maa ngi leen di woo ñoom ñëpp daal nañ ci gën a jàpp waaw di wax ne réew mi daal jàmm rek a fi xaj ah. waaw mais yow nitu parcelle ku mel ni borom Kéemaan nga tuddee ko drapeau lan nga sentir waaw moom day ndaanaan doon jàmbaar di bégal askan wi di wax ci développement réew mi kon bu ñu amee bés bu mel nii jaadu na pour ñu delloo ko si njukkal mu nekk nit ku baax nag loolu tax ñu delloo ko si njukkal. waaw am njëriñ. waaw non nit baax la moom am na njëriñ wax dëgg yàlla jàmbaaru fàkk dara sañ bada. lu mu la waxoon ci taw bi. non loolu moom su ma ko wax fii ndax. lan la la waxoon ci taw bi. damay bañ cat dugg ci. non dama gis sànq affaire yi ñëw ba ci stade bi ma gis affaire yi dévié. dama dama dégg dama dégg géejewaay daa lóor. waaw ah. dama léegi stade bi tawul. da ah. waxoon nga ko jam. waaw loolu moom waxoon naa ko nee naa ko incha allah rabi danaa téye taw bi ba may génn sama baaraam bu tuuti maa wax si sama baram bu tuuti bii maa ko téye danaa ko téye ba ba may génn ci stade bi réew mi loo fi mënul amut maa la wax loolu. kii laa bëgg fi dara. Géejawaay daa taw ba tooy. stade bi li ko wër taw ba tooy. biir stade bi tawul. xanaa xamoon ne réew mi bi ñëpp jàppee ne réew mi day yëngatu. maako ko téye. rëbbëgee Kara. ci loo de. sant yàlla. yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. Baye Mandione Bébé Diène. Baye Mandione Bébé Diène l' expérience face à la jeunesse de Bébé très fort physiquement très fort techniquement face à Baye Mandione armé de courage et de hargne Bébé Diène ne ci yoon ne la may dem ca kaw laa jëm roi des arènes teg ko fi Médina moom mission bi Baye Mandione nekk ci ci boo xam ne. dañ ne woon dafay téye làmb instant bi palmarès bi Baye Mandione bokk na ci pire palmarès ci arène bi palmarès ci gën a ñaaw ci arène bi. Baye Mandione Baye Mandione 14 victoire 14 défaites benn combat nul benn benn combat sans verdict Baye Mandione toll ci relancé wu xoolul ay moromam dafa xool benn booy bu ne ci yoon. Baye Mandione tey bés bu freiné Bébé Diène bés bu freiné Bébé Diène dana bind dana bind ci histoire làmb Sénégal. benn passe bi gën a rafet ci histoire lamb Sénégal. mais bu perdee. bu ñàkkee combat bi ah xanaa lijjanti weccet moo koy dese ci lamb parce que bu ñu ne 15 défaites foofu xanaa lijjanti weccet moo koy dese mais ñu gis Bébé Diène tey mu ñëw wàññi poids par rapport combat bi mu jógee ak Gackou 2 peut vivacité la liggéey rapidité d'exécution parce que xam na ni Baye Mandione c'est un lourd pour déstabiliser ko foog nga mën dugg génn curuxu curuxu foog nga attan sa yaram foog nga nekk une personne mobile yaa may dégg peut a wax mooy que une victoire sur jëlee ci ko ci 20 am na victoire boo xam ne 3 points la mais ci làmb am na victoire yoo xam ne 10 la. jaajëf Seydina. yàlla nañu a yaatu am. Matou bëgg naa. maa ngi nii. maa ngi nii rek. yaa am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah. Bou Siteu lamb ju doy waar ndax Bou Siteu dafa toog ci ay dynamique de victoire ay toog ci ay dynamique de victoire parce que ñoom ñaar seen lamb dañ koy yàgg bëgg. mbër yëpp bëgg ko nag mais tey dinañ xam ba xam plateau day ñëw gën a dëggal boppam wala Bou Siteu parce que Bou Siteu daanaka bi nay xool bi mooy sànni tàccoom bi mooy sànni tàccoom te Bou dafa bokk ci làmb ndax tey ñoom ñaan ñëpp gis naa leen bi ñu dugg see Bou tey dafa dugg see ak sérieux gis naa ko léegi ci bunt bi gis plateau léegi ci bunt bi waaw mais làmb ju neex la mooy làmb amateur yi làmb jooju mooy làmb amateur jaajëf làmb ju neex a neex Rebege. Fatma Dia ci loo de. sant yàlla bu baax alhamdulilah yaa ngi am jàmm. maa ngi jàmm bu baax. combat am solo diggante Tass Yakar Fallou Kalango. combat bu neex ah ndax Tass Yakar kon li ma yor ñoom booy dañoo mën a bëre. mais le problème qui se pose mooy seen tur moo xawoon na bu tuuti léegi nag jour bi occasion la ñu mën cee exploiter seen bopp ndax ku mel ni tas yaakaar ak Fallou Clando tey bébé Diène ak ki nga xam te Baye Mandione bu ñu ko Baye Mandione mayee chance mais chance mën na cee am mais loolu day dépendre su ñoom ñu nekk xale yoo xam te ni kii Pikine daa am ci moom yaakaar ndax gis nañ Pikine espoir yi fa nekk macha allah du jeex te à chaque fois dañuy gis ay ñoo xam ne ay révélation lañ ci biir yoo xamante ni macha allah kon bébé Diène ak ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione l' expérience la jeunesse Baye Mandione bëreeg Modou Lo bëreeg ñëpp amatul dara lu muy prouvé si làmb ñu gis fi euh, kii bébé Diène dafa amoon ay tolof tolof yu ko jàppoon tey mu ñëw pour bëgg a wanewaat boppam nar a def benn exploit bu extraordinaire. Baye Mandione lan moo ko arrangé ci bisub li ma wax rek amatul dara lu muy prouver si làmb na toog xaar Bébé Diène moo bëgg na bàyyi Bébé Diène ñëw. état bi Bébé Diène indi tey est war na war na koo indi contre Baye parce que dañoo gis ne dafa wàññeeku. xam nga poids lourd sooy bëree moom xam nga Baye joon quoi qu'on puisse dire lourd la mais Bébé Diène dafa may expert yu mu nekkal ku ci mel ne Père Kayre ay ay Diène Kayre ñoom modèle bu nekk dañ doon bëree ak ñoom léegi est-ce que de fait de ce fait que ñoom dañuy xool li nga xamante ne moom moo leen arrangé ñu travail ko Bébé Diène ndax Bébé Diène dafa indoon benn poids boo xamante ne ci contre gàkku 2 critique bi bari ñu ne Bébé Diène entraîné wul dafa gaaw a sonn la ko daloon foofu est-ce que nekkul loolu lay bañ mu répété waat moo tax mu wàññi poids. merci Fatma Diagne kontaan waaw gëj a gis ne sama weex. jëloon ne. xar say gaan. yaa ngi am jàmm amaat jàmm baax a baax a baax. waaw ah, tey yaa maa waajal xare bi si kanam tuuti. lay sa adversaire. waaw sama adversaire moo ëppal ma si kaw ëppal ma si suuf te teewul dara du sedd incha allah. est-ce que loolu dina yomb. si kàttanu yàlla. ëpp si kaw ëpp si kaw ëpp di suuf te du sedd incha ah. waaw ndam rek luñ liggéey xam mooy loolu. tey mel ni Tidiane Faye doon gis tey da ngaa ñëw yokk waaw liggéey rek parce que lamb rek dañu see yaakaar parce ñu def loo xam xam ne suñu tur dem na ci boo xam ne faaw ñu góorgóorlu waaw am ñoo xam ne tamit ñu ngi jàppale ñu ngi suñu ginnaaw xam nga raison yi ñëw xam nga Bathie Ndoye xam nga Assane xam yenn gars yi ñoom Moussa Fall la jaan gars si jàpp bu baax lool noonu xam nga day feeñ quoi. waaw jàmm si yéen. naar bëgg naa la. Nabil Moussa waa siyaar naa la. ci maa ngi am jàmm bu baax. yaa ngi maa ngi sant alhamdulilah. tey journée jàmbaar ñu gis mën nañ ni quatre heures demi mooy doo ko jot stade bi fees dell. macha allah tey Jamaïcain production woote gis nañ ne stade bi mel yaakaar naa ni olof dana bis du tuut borom lay tollool yaakaar naa tey ñaar ñiñ boole seen dayo yaakaar naa foo ko natt ci làmb rek weesu na ko muy Baye Mandione ak ki nga xamante ni mooy Bébé Diène ñoom ñaar lañ boole tey stade bi mel nii yaakaar naa li ne ci biti moo ëpp li nekk ci biir yaakaar naa tey kon stade bi Kara nar naa toj incha allah. bàyyi ma ñoon bébé Diène. bàyyi ma ñoon bébé mu nekk combat boo xam ni comme ni ko gars yi di waxee l' expérience la contre la jeunesse bàyyi ma ñoon duggoon sumba jun daje woon ak euh, patron bu bébé ñu daje ñaari yoon mu daan booy kayre tey mu daje nga xamante ni mooy élève booy kayre Baye Mandione ne ko fa ma jaaroon ak sa pataron laay jaar ak yow Bébé Diène na ko fa nga tolloon ba ngay bëreeg sama patron fa sama patron fa mu tolloon ba ngay bëreeg moom jamono ji foofu nga toll te na ko defoon naa la def lu ko raw. mel ni Bébé Diène revanche lay bëre tey. lay bëre tey revanche par procuration boo xamante ni yaakaar naa ni tey daal ku ñëw di nga mais attention na def attention muy daje koo xam ne ndaanaan la ci làmb muy Baye Mandione làmb yàgg koo bàyyi xel. ndax yaakaar naa tey favori xeex man moo ko doon joxe tey favori xeex bi dama koy jox Baye Mandione dama koy jox Baye bu ñëwee ci bëre bu ñëwee ci bëre yaakaar naa ni bébé jën bébé jën tam favori bëre moom laa koy jox mais bu ma indi woon jën tey dama naan ko bul xeex ak Baye Mandione jaajëf jaajëf ba karaat champion di ndaanaan mais muy daje xale boo xam ne muy Baye Mandione mun nañ ni yéen ñaar sax bëri ngeen waaw dëgg la uh-huh. waaw Baye moom doon jamono bi muy bëre man Euh, maanaam Bébé Diène foofu la tollu léegi. foofu la toll dama koy may chance ak ni muy may chance Bébé foofu la toll léegi bëre mag ak mag la xale. waaye xale bi nag mag moo nekk ci ginnaaw la ci war yëpp nag def nañ ko. yàlla ma jëlal revanche. mu jëlal la revanche waaw yàlla ko yàlla def waaw. tey Bébé Diène ñu gis dafa ñëw wàññi point par rapport bi muy bëre ki nga xam mooy Gackou 2. xam nga àdduna rek euh, lépp préparation rek sport ñun kenn mënuñu si nax lépp loo leen gis rek xamal lu logique la boobu repos bi yàgg na bëri na bi muy bëree Gackou boobu maanaam li mu toog dafa yàgg. mu toog donc c'est sportif il faut nga jël masse mais je pense que ne boobu ba tey liggéey bi dañ ko continuer. waaw liggéey moo tax ngeen gis état de bi état bi nag dañuy ñaan mu ànd ak ndam rek ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun tey waaw mais liggéey bi moom teg nañ ko ci yoon. dina am merci. maa ngi delloo ziar. maa ngi sant yàlla. yaa ngi maa ngi sant allah li nga sol rafet gis nga de <laughs> kii mooy espagnol trabaja. trabaja TV na fa ñëpp dem abonné maa ko wax ku bëgg xam. cent quatre vingt dix mille jëll yi am cent quatre vingt dix mille roofoo yi am taxet kan cent quatre vingt dix mille galajaane yi am demal Tarabaha TV non kii maay ñoom ñooy man feral journée jàmbaar journée jam production quatre heures cinquante cinq stade bi mel ni da laa bett daa bi tegul combat bu ndaw Diène Diouf Ah, ah, ah, bébé Diène la tëgg te attention Médina Fass Grand Dakar Gueule Tapée Usine fii miic ba ci banlieue bi xale bi daf koo moom mais di bëre koo xam ne boo ko nee ban victoire moo la gën neex bu ne keroog ba ma daanee Modou Lo bàyyi ma ki daan Gris Bordeaux ne moo daan Modou Lo tàkkusaan bu nekk mu am ko mais stade bi des na sax li nekk ci biti moo bu li nekk ci biir mais tey mu bëre xale boo xam ne bëre na ak patron muy Diène Kaïré mu bëre ki nga xam ne bàyyi ma ñoon bëre ki nga xam ne mooy Kaïré mu war a tey jël xoolal dafa bëre ak Baye Mandione bëre ak booy Kayre gesul booy Kayre moo indi jé euh, moo indi bébé jéen gesul gesul gesul gesul mais jéen bis boobu lan par procuration benn mbër moo fi nekk bokk ak doomam takkusaan doomam bëre spécial moom mu bëre muy Boy Kayre moo baaj loolu kon l'histoire retiendra waaye li ma la mën a xamal mooy expérience la face à la jeunesse bàyyi ma ñoon amul droit def erreur ci lamb ji kon sinon rek ñu ne bii bon Ibres am na gan. yaakaar naa naka mu nice. yaa ngi am sant ma ñoon waaw. favori nga bëgg a laajte. kan mooy la jeunesse xale. ci doole wala ci bëre. ci doole ci bëre. bàyyi ma ñoon bi muy commencé foog naa bébé jën xalaatugul dugg ci làmb. ah, ah donc bébé jën bi muy dugg ci làmb yàggul. bàyyi ma ñoon 14 victoire de défaite benn nul benn sans verdict. kon kooku lan moo ko war ci bis bi ah, tey. rek xaar xale bi jël si bu fekkee bëgg na dara jeunesse bi nag moom moo war a fekki. jaajëf waaw. su loo ne. maa ngi si. yaa ngi am jàmm. waaw. mais tey nga jóg Medina gépp jóg topp sa ginnaaw. sant yàlla rek. aja champion baa ngi noonu ñami ñami daa mel ni mi ngi wuyu gaay ñu xaar ko tuuti mu pare bëgg naa la waay sant yàlla ñami koy wax waaw bëggeel ma ko day ko kara bi lay bëgg mabel kara mi ngi lay bëggee kara waa Kara moo lay Kara. Eh, mais naka mu nice. bëgg naa la. waaw sant yàlla wér kay alhamdulilah tawfiq alhamdulilah. bu advocat. waaw noonu la demee. yaa nag sa doomu ndey ñëpp ñëpp. waaw bilaahi gaan pour waaw yaa ma gën a xam pour daan booy bi jëlu leer nañ la. bilaahi wala du ma booy bi barke Serigne Bamba du ma entraînement de pour booy bi. bilaahi wala. ñam ñam bi bëgg naa la. jëloo bëgg jëloo. jëloo ne. sant dama yéene rek yàlla baax na kenn la wax instant yii ndam rek incha allah mais tey ñu gis bi ngay génn supporters yi car macha allah ni gën a yokkoo niñ gën a bare. waaw sant yàlla daal waaw sant yàlla loolu yëpp yàlla la. lan ngay wax sa adversaire. sama adversaire laa ne nga yaram bi rek booy ba moom day muñ bu waa. day muñ day muñ allah bu neexee yàlla bilaay walaay taalaay. xanaa après ma ñëw waaw loolu bilaay walaay taalaay bu ragal loolu. balaa nga Fallou borom Tivaouane bëgg naa la. waaw maa ngi lay fay. ci loo ne. maa ngi rek. yaa ngi am jàmm. yaa ngi am jàmm bu baax. tey tas yaakaar nga am waaw yaakaaram laay si kanam rek. Ah? waaw yaakaaram ma koy tas léegi. nee da koy fat. mënu maa téye. nee da koy fat. mënu koo fat. koo fat yaakaar bi mënu koo téye da koy ma koy tas. gaay ba ñu ne gaa yaa ngi ne ñëpp mobilisé man la ñuy xaar kii arbitre bee ko fi bàyyi rek. mais sa combat bu njëkk de ay seconde la. ay seconde la bi yooyu gën a gaaw. incha bii nii bu dawul bu dawul te bu dawee ma dàq ko daan ko. yow nee na moom du du voilà loolu kon day gaaw. da ngeen di daje waaw waaw yow kay moom seen waa kër du la duñ la laajte. Ah. balaa timis nga ñibbi. jaajëf jaajëfate. ngi lay ziar bu baax a baax. ci loonee. sant yàlla bu baax. yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax. léegi nga dikk indi say rakk. waa Grand Yoff muy ñammi ñammi. waaw ñammi ñammi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may dam lépp li may ndam dañ na coono boobu ndax borom xol bu rafet la mérite na lu ne si làmb mën na bëgg na ko mën na bëre jafe-jafe moo ko daloon nag yàlla na jafe-jafe boobu dañ moo am ndam loolu lañ koy ñaanal. mais bi nga jógee sa papa euh, combat papa booy junne ba léegi déggaatuñ la promoteur yaa ngi déggante ak ñoom wala ak adversaire. waaw ñu ngi wax gars ñu ngi daw rek man maa ngi xaar rek. yow la wala ci adversaire. man pare naa adversaire buñ ma wax ma ne ko dama leen xooli ko ñu dem mi indi xel ma leen ba maay loolu. côté moo ñu yore côté. dafa am ñu ne xam ne loolu du ma bëreeg ñoom. am ñoo xam ne du ma bëreeg ñoom. muy ñan. adversaire ñii lañ. walaay maa ngi nii. ma yee seen adversaire man. xanaa man ma yee seen adversaire. man xanaa man du ma jël adversaire ñii. walaay. loolu. ma nee laajee seen adversaire ma bàyyi bëre. nga dañ ma ko ji. fi mu toll ñan moo nekk sax ñi ma war a bëreel. si kaw xam nga ko yow ñu ma war xam nga ko. loolu moo tudd turu kenn. waaw ñu ma war a xam nga ko. jaajëf maillot bii ma sol daaw da ngay jéeme ko jox sama poro la bu nekk boo xam mi ngi ci dëkku naari bëgg naa la maa ngi lay siyaar Kara ci loone maa ngi bii sama benn poro moo ma ko jox daaw da ngay jéeme nekk jour boo xamante ni li muy dugal doy na waar football lu ci gën du dugal daaw da ngay jéeme da ko la na ko woo ci équipe nationale ñam ko na ko ñam équipe nationale kenn du daaw da ngay jéeme moo ma yónnee maillot bii waaw numéro 10 waaw yaa ma gën a xam mi ngi nii <laughs> mais bëgg naa la maa lay bu neex mag la ak xale mais Bébé Diène bu daanee tey ndakaaru dootu ko attan ndax xoolal ni mu def stade bi moom Bébé Diène mii lu garaaw laa lay wax tey daan rek ko ko war ci bés bi waaye Baye Mandione nag ni ma ko gisee bëgg na combat bi te am na doole. bëgg na am na doole. par rapport ak état bi Bébé Diène waaw waaw waaw Baye Mandione xaw naa diis ci kawam nag xaw naa diis lool ci kawam mais Bébé Diène buy def na bañ a def erreur bis bu defee erreur Baye Mandione mi ci kawam te bu xeexee moom Baye Mandione dafa mën a xeex waaw mag la moo xam ne néewul xale bàyyi naa la ak yàlla. mel ni Medina fi mu toll dañoo toll ci xëccoo ay supporter ak wut supporter parce Ada Fass bu jógee day mobiliser Diène bu jógee day mobiliser Bébé Diène bu jógee nga ne que saa. Serigne ko ci. Serigne Ndiaye maanaam Fass moo bëri ay koo xamante ne bii nii fonkoo lamb ci waa Fass ah jàpp ko ci concal franc lu leer laa lay wax waa ndax la fa nekk ñoom maanaam regg nañ ay champion ba pare wax dëgg fa yàlla kon képp koo xamante ni mbër nga nekk biir Fass erreur waru mel ni dafa xat waa xat na lool seere na nag na lool yow sa waay ga waaw mi noonu ñu ngi noonu supporter bébé jéeni la ñu noonu Baye Mandione mooy dugg si waaw waaw waa kër bébé jéen la waaw waaw waa kër bébé jël la ñu noonu jëlal ma suba teer bébé jën Medina la ñu dëkk. benn minute rek bëgg naa la. ah bëgg naa la. ñu ngi ziar waal. ñu doon ne. naaj. sile yi pour lan la. ah. sile yi pour lan la sile yi. pour sécurité sécurité. ah pour sécurité. waaw waaw. te saabu jéem la daal. waaw waaw waaw waaw. maanaam da ngeen di bañ booy yi demoon. waaw loolu la ñu bañ waaw. am solo waaw naaj kay. ah bëgg naa la delloo bëgg gaay ma gis supporter Bébé Diène yi yéen ñi nga xam ne yéen ay sol ay ay blouson lan la pour non ñun ñu sol nii ay sécurité lañ quoi ñun dañuy protéger suñu supporter yi si terrain bi xool booy ñu bañ a yàq quoi parce que dañ bëgg mu rafet tey suñu biis la bàyyi wa ñoon dañ nekk xale mu may ñu sansi dañ koy jël yàlla nañ may damu bu set booy yi moom ngeen di invité pour booy waaw loolu la ñuy jouer quoi ñun loolu mooy suñu sécurité yoon pour ñu gérer suñu groupe bi ñu lay félicité waale nga ñu bëggee. na bi noonu la demee gis nga sécurité bi staffu Diène staffu bébé Diène la gis nga ñoom ñi ngi noonu ñooy protéger supporters yi pour bañ ñu yàq séesi te dañuy waxtaan ak ñoom en même temps gis ngeen ñu bañ a déborder muy liggéey bu am solo li leen ci jaajëfal di xaar yeneen mbër yi ak yeneen ñu def nii parce que li liggéey bu am solo la. mbokk ñu ngi ci cinquième combat la soirée. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ci cinquième combat de la soirée dox ci diggante Thiatou Moussa Dioum wan leen ginnaaw ngem boo lu weex li Diams 2 moom ngeen jàkkaar lool ngem boo ngem lu ruus journée jam production la grand combat dox ci Baye Mandione junior Baye Mandione ak ki nga xam ne mooy génn arbitre su leen génn seen diggante Moussa Dioum de xeex ak Jamsi daw na plaqué ko mu bañ ña xeex ñoom ñaar diggante si musa Dioum numéro 2 seen combat teel naa metti ñoom ñaar diggante Moussa Dioum numéro 2 ak Jamsi numéro 2 ak Jamsi weñ na ko mu bañ diggante Jamsi Moussa Dioum diggante James Moussa Dioum numéro 2 xeex ñoom ñaar ma dugal ay kuy sew ca suuf diggante James ak Moussa Dioum numéro 2 dooraat na moom James ma ngay door moom James diggante James Moussa Dioum numéro 2 moytul ca xabal bi James moytul xabal bi lonk na ko ko lonk na ko ko da koy daan na ko daan na ko nee naa la moytul xabal bi boobu ba léegi mi ngi koy tante eh Moussa Dioum numéro 2 daan na James daan na ko mi ngi noonu bare jond moo ko indi waaw waaw ma sant yàlla jóg na taxaw jëm ca supporter nee na mi ngi ñëw. mbokk yi arbitre bi consulté na ay sisam nee na na ndax pare ngeen ñu ni ko pare nañ diggante booy jaxaaw wan leen ginnaaw yeexi mbaam mi loor ngeen jàkkaar diggante Yaxi Mbamlor ak Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw bi mu fi mujjee yàggul digganteem ak Mbisaan Jon la woon defet la ci woon diggante Yaxi Mbamlor Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw jiital pied gauche Yaxi Mbamlor moom itam jiital pied diggante boo Jaxaaw Yaxi Mbambilor ndaanaan la moom Yaxi moom kii boo Jaxaaw mais ki muy bëreel ndaanaan la de Yaxi Mbambilor ay jël yu rëy rek lay daan waaye bi mu fi mujj lim bëree gars yi d'accorduñ moom Boy Jaxaaw diggante Yaxi Mbambilor Boy Jaxaaw ñu joxante cër ñoom ñaar Sitor jox na leen avertissement verbal Sitor suufle wanaa na kenn seen diggante Boy Jaxaaw cokkaas ko diggante Boy Jaxaaw Yaxi Mbambilor Boy Jaxaaw wan leen ginnaaw Yaxi Mbaam mi loor ngeen jàkkaar lool. Boy Jaxaaw ah. war naa gën a liggéey. Boy Jaxaaw waaw ak. bind bi yor. njool la bu liggéeyee war naa dépassé fii ndax i mu bëreeg mbisaan jon état bi la fi indi woon it diggante Yaxi Mbaam mi loor taxawaat léewtoo ba mu yàgg ñu dagg léewtoo ba na moom Boy Jaxaaw mépp taxawaat eh door na ko coup mu remis ko xeex Boy Jaxaar jël nañ ko ña ngi koy pakate daan na ko Yaxin Bambilor daan na ko 8 fee bee fee yàggul eh Yaxin Bambilor daan na Boy Jaxaaw daan na ko da koo sàcc daw ci ko plaqué ko mu toog xoola Boy Jaxaaw ma nga ca digg géew ba xool ko ma ngay raam Boy Jaxaaw ma ngay raam daa joomi eh ña ngi koy sotti bitel da ko sàcc da koo sàcc ñu ci dimanche ñu ci dimanche le 13 août fii ci arène nationale journée Jam Production ñu ci septième combat de la soirée dox ci diggante Ramdan ak Douglas Douglas numéro 2 ak Ramdan Douglas ngeen jaakaar lool Ramdan moo leen wan ginnaaw diggante Ramdan Junior ak Douglas Naby diggante Douglas numéro 2 Ramdan. ndeysaan sama xel daal di ji Ramdan mag ma. ñu koy ñaan suñ borom xaare ko àjjana yeesal yërmande. ma kaw Moussa Dioum deux moo daan léegi. waaw ñu koy ñaanal moom itam suñ borom xaare ko àjjana yeesal yërmande ci kaw moom Moussa jum arbitre bi suuf leen a génn seen diggante Ramdan Senior ak Douglas numéro 2. Douglas numéro 2 jiital pied gauche Ramdam jiital pied droite mi noonu xeex xeex Ramdan Douglas ña xeex ñoom ñaar daw nañ jàppante xeex jël na tànk ba lu koy def Douglas Ramdan ña ngay xeex eh Ramdan senior ma ngay door Douglas ma ngay bañ Ramdan senior Douglas daw na jël ko Ramdan jël na ko lu koy def ma ngi koy daan da koy daan na ko Ramdan senior daan na Douglas eh daan na ko. lutte fee bee fee yàggul daa mën a bëre moom Ramdaan Junior daa mën a bëre daa nekk ci yoon xool ko xool ko jëlal waaw mi ngi noonu Ramdaan Junior ñëw na. Surba la grand combat dox lool Bébé Diène jiital pied gauche Baye Mandione jiital pied droite diggante Bébé Diène Baye Mandione diggante Bébé Diène Baye Baama Ndione Baama Ndione bi mu fi mujj diggante ba xoyantaan la woon wala digganteem ak Zarko fi la mujjoon fi ci arène nationale mu fi jógee mu dem Kaolack ba def ak ki nga xam mooy Bébé Saloum Bébé Saloum daan ko Zarko daan ko. Mbaye diggante Baye Mandione Bébé Diène Bébé bi fi mujj diggante ma Kakou Deux la woon victoire la ci jëlee ñu faat leen ni Baye Mandione bëre na ki nga xam ni mooy Kairé mooy course bi nii moo toog waaye tey mu bëre problème avertissement verbal